bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wasalaamu ala rasulillah barke borom Touba mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe ñu ngi nuyoo nuyoob lislaam muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nuyoo bi itam ñu ngi koy jëlee ci soxna maam Isa Mbakke bintu sëriñ Modou Fati Xari sëñ Modou Fati Xari ibnu Seex ma Mazamba waaye ci kàddu rakkam ak teewaayam muy sëriñ Modou Kara Mbakke moom sëriñ Modou Fati Xari muy jëwriñi sëriñ Cheikh mu sëñ Modou Fati Xari ndax lépp lu sëriñ seex di deflu waroon caa taxaw moom mii la koy defloo daaru karim ga nga xam ne mooy cirub Seex ma Mazamba ca Touba moom mii mooy chef de village su Daaru Karim waaye lépp lu ñuy lijjanti ca kër Serigne Fati Xari moom mii la ko sëñ Cheikh di lijjanti loo waaye Serigne ma Massamba mii xalifa ma sàmba ak sëriñ Cheikh mii magam ñoo ne ko ñun njabootu sëñ ma sàmba gépp ñoo waroon a ànd ak soxna si waaye jox nañ la ndigal nga gungeel ñu ko kon moom ñëwul ngir bokk ak soxna si ndey ak baay waaye dafa ñëw ci ndigal ngir gunge magam sëñ du Kara ciw turam laay waxee jox ko mu àggale waaye man damay leeral liggéey bi rek sëriñ bi soxna si dafa wax ne bokki taalibe yi nga xam ne ñoom la àndal ginnaaw bi nu amee yéenay siyaare Sarsara dagg seeni billet paas paase waat Nouakchott ba Sarsara liggéey bi itam da leen koy yëgal di leen wax ne leen su ma sañoon day du ma ànd ak kenn mu dem siyaare ji rek yem ci ziyaar bi waaye dafa am lu ñu fay defal sëñ Touba te loolee ñu fay defal sëriñ Touba moo gënal sëñ moom. muy jàkka ndax ca Gabon la sampon ay bant jublu ci jàkka commandant bi ñëw buddi ko yelli say ñëw di xuloo ak commandant bi takkusaan ba timis ca sëriñ bi bindee xadis xasid ak raditu anil mawla taala lasi rabba fuhaadi wa axnaani wa akrim bihi rabba ca biir xasida googee nag la ñaane ne lahugtu salaatan ma salaamin bi alihi wa ashaabihi wajal bihi masjidi rahba yow yàlla tubaab yi daane nañ sama jàkka ji waaye man meruma damay ñaan sama borom mu defal ma jàkka joo xam ne kenn du ko buddi kenn du fay julli nërmel mu yónni sëy Jibril ne ko nee sëñ Tuubaa nangu naa ak ñaanam danaa ko tabaxal ñaari jàkka ci réew ma jenn ja njaareem lay nekk jenn ja Tuubaa lay nekk kon fu jàkka nekk ñaari jàkka yooyu la jur ba ci Sarsara kon nag loola mooy bëgg-bëggub Sëriñ Tuubaa moo tax soxna si ne ñi mu àndal bëggul ñu des ginnaaw ci jàkka ji moo tax mu leen ci soññ waxtu ne ku ci def ab dërëm bind nañ sew tur ku ci def ñaar dërëm bind nañ sew tur liiroon nañ ko tam ci kër Sabara Fall ña joxe woon Touba liiroon nañ ko ci Touba kon du ko jaraak fii moo tax dañoo bëgg a wax rek li nu barkeeloo sëñ Modou Kara jël ko teg ko ci loxoy Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Mamadou Moutala la ca jiitu tam mooy sëñ Sidi soxna si nee na fii nu toog yaa fii Serigne Touba te moom rus naa nuyu sëñ Touba ak loxoy neen moo tax mu ne am na addee ju ñu dajale. mu toll ci soixante mille uguya nekk ñaar fukki junni ci CFA jox nañ la ko addiyee Cheikh Mouhamadul Mourtada lew na la doom moo ñim àndal ñoo la ko dimbalee ci bis bi ba loola jàllee nag moo bokki taalibe yi àndal yëkkatiwaat nañ un million CFA muy six cent mille uguya mi ngi nii ak Serigne Ousmane Sam mi nga xam ne at mu jot ci loxoom lañ koy teg mu jébbal lañu ko Serigne bi kon ñaari liggéey yooyu la ñuy boole jox ko Serigne moo Kara mu joxal ko Serigne bi te koy wax nag xeeb nañ ko lool lool lool lool lool waaye bu yoon jeexul waaxu sul du jeex loolu rek sëñ bi lañ la buggoon a seeral kon un million yi nañ ko defal ci jàkka ji ñoo ngi delluwaat lu ñu taxanaat danañ ko indiwaat lu ñu fortaatuwaat danañ ko indiwaat incha allahu taala euh, ñaar fukki junni yi def nañ ko addi Cheikh Mamadou Mourtala di ko xeeb bu baax a baax soxna si nag damaa wax lu yéeme nee million boobu mu joxe ñaar ñi ko séq te bokk bis bi nee na yéene moo doon suñ toogoon fii mu teg ko ci seen loxo waaye xam na ne man nañ zahir man baatin te xam nañ ne luñ jox sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nangu ko nee na benn téeméeri junni bi teg na ko ci loxoy borom daarul muxti def ko addiyaam te nu mu jox borom daaru sëñ Tuubaa nangu ko benn téeméeri junni bi teg na ko ci loxob Seex Masamba te lu mu jox Seex Masamba sëñ Tuubaa nangu ko muy million ñu teg ko ci loxo sëñ Sidi mi sëñ Murtala asalaamaaleykum wa rahmatullah